bëggoon tënk rek ay kàddu yoo xam ne damay fàttali tuuti ci lañ weesu moo di sama digg ak bokki daara ji eh, diir bi mu sosoog léegi laaj naa ko sëriñ Thierno léegi moo ne ma mi ngi toll ci ñaar fukki at ak ñaar ñaar ñaar fukki at ak ñett ak ñaar fukki jëm maanaam jëm ci ñaar fukki at ak ñeent diir boobu mu sosoo ak léegi ci jamono jooja bi mu sosoo dama leen a digmati xelmati leen tàmmul tàmmul di leen nemmiku moo ci amee diir ma daal di diir jamono waxtu woowee ma toll ma attiwu ci sama bopp ne ñii di gëmewuma leen loolu waxoon naa ko ca gannaaw ba ma leen gëmee gëmee gëmee gëmee ñàkk a gëmee am na lu ca nekk waaye ba ma leen gëmewul itam dafa am yaar yu ma doxale sama diggante ak ñoom lenn la moo di dama dal di rafet ci ñoom njort bi ma rafetee ci ñoom njort itam ma boole ko nag yéene lool lii ma xel ci ñoom di rekk dëgg ci ñoom dama xam ne mu nekk dëgg ci ñoom lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir mu nekk di ñoo xam ne ñu ñu dëggal sëriñ bi lañu di nekk ñoo xam ne ñu dëggu ci sëriñ bi lañu sama yéene ci ñoom rek laay laa leeral ndax xam ne rek bu loolu amee rek tey jii ak ëllëg seen lépp a defaru ku am loolu itam sa lépp defar dëgg loolu te defaru gi rek moo ci am solo doomu aadama dafa laaj defar te defaru rek a koy amal njariñ ba xam ne bu loolu dëggoo bu ñu dëggalee sëriñ bi sëriñ bi dëggu ci ñoom seen lépp defar ndax sëriñ bi moom Euh, sang bu baax ba Seydina Aïcha dañ koo laajoon luy jikko yonent bi mu ne jikko yonent bi mooy alquran ma dégg ci ne sëñ bii moom yonent bi mooy jikkoom kon yàlla nañ mu may mu dëggal sëñ bi te sëñ bi dëggu ci nun dana am am gindiku ci am yéene am pas-pas parce que di sëriñ bi rek mun doonee di sëriñ bi rek sëriñ bi di suñu ko ah ba tey sama diggante ñoom nag ah, man loolu rek laa mos a bëgg ci ñoom mosuma bëgg ci ñoom dara may gën di am yaakaar di gën am xel mu dal di gën di yéene di di ñaan bëgg rek loolu dëgg ci ñoom leneen nag bëgguma ko ci ñoom mosuma ko bëgg ci ñoom waaye nag jëf borom ma ko moom bis yii di bis soxla su tedd si naka jëkk dañ koo fonkoon dañ daa ñëw rek seet seen barab bopp rek ñu tàmbali fonk ko lool ba guddi jeex di liggéey seen liggéey bu rëy bii nga xam ne sëriñ Tuubaa liggéey bu rëy na lool waaye xasaay bi xasaay bi boobu ba léegi ñu nekk ci loolu bat ci bis bi bis mu ji tey seen yitte joojee it yitte mënu fa woon a raw yéene yu sell mënu fa woon raw parce que bu dëgër mënu fa woon a raw waaye ci seen yéene ju sell ak seen pësteef bu dëgër ak seen yitte ju fan yii sedd nañ barab bi cër bu rëy waaye loolu lépp nag yoonu kenn nekku ci sëriñ bi rekk leen tax a jóg sëriñ bi rekk ko waral dafa fekk na rek am naa ci tawfiq ginnaaw jàpp nañ ne noo ko bokk ñu doonal ma ci boole ma ci doonal ma ci loolu sama tawfiq la waaye nag wax dëgg yàlla euh, sant naa leen jant gu ndax rekk doonal gi ma ci doonal boole gi ma ci boole santaan la cant gu rëy ndax sonn nañ fii coono yu doy waar yéene ko gisal seen bopp liggéey nañ fi liggéey bu rafet bu doy waar te waaye moo leen di tegtal rek baatin bi ba coono bi yi ñu yi ñu ci def ba mu weesoo ba mu taxaw ngeen mën cee teg seen bët nii xool leen rek seen toogaay yi sëriñ bi di seen yitte rek ko waral ah ooy wax dëgg yàlla day man mun day mënuma leen a ñàkk a seere moo tax nag mel na ne ah dama am xel mu dal ci lépp ndax sëriñ bi ah, ci loolu eh, bi ñuy jàng Fawzeyni bi maanaam agsi ci bayit yoo xam ne dal na sëriñ bi moom ni ma ko waxee rek sëriñ bi moom fu lépp ci moom doo am xalaat doo am jaaxle ndax sëriñ bi noppi na fàggu na lépp sama mbokk yi sax dama leen daa wax ne man fàggu fàggute sëriñ bi rek ngeen ndax sëriñ bi fàggu lépp xam ngeen ne seen melo wii li ko dale ci ñi mag ba ci ñi tuuti xam nga ne loolu fi ñu toll kenn mënu ko def sa bopp dañ ko def ci ñoom kenn defu ko ci ñoom lu sëriñ bi fu sëriñ bi la sëriñ bi noppi na yàlla na fekk nu bokk ca paggutif ba yàlla na fekk rek nu bokk ca paggutif ba waaw seetlu leen leen seetlu leen lii seetlu leen leen bu baax xam nga nit ñi dañ leen a sóob yoon wi ñu aw dañ leen ci sóob sóobuñu ci seen bopp kon mënees na am xalaat lool ci jamono jii nu toll waaye nag mënees na ñàkk xalaat ndax ki sóobe moo yor wommat bi kon bu nu delloo ci doomu aadama wax dëgg yàlla mën naa jaaxle mën naa am waaye nag fekk na mën naa ñàkk ñoom dañ leen a sóob